Omar Ndiago ak Ama Omar Ndiago la ñu jàkkaarloo Ama moo ñëwoon ginnaaw ngémboo ngémbul weex li Omar Ndiago moo ras sa bopp bi yu xonk yi daw eh, lu muy def nii laay xale yaa ngi noonu Ama Ndiago ngëyeñ caxabal na ko doy daan Ama Ndiago daan na Ama Ama Ndiago daan na da koo takk rek ko mu ko rof caxabal ba mu forcé ko mu jaaxaan Ama Ndiago daan na boo dañoo sonn suñu làmb ji waa Seras waa Sira Sonatel waa Malika. bilaa walaay booy ñooy sama lépp gisoo booy jàmm gën nante yëpp a ngi fi. parce que Serigne ma fi yaay yëpp. mais lan la toppee xale yi. waaw dañoo ma bëgg seen rek. xale nga jox lu mu moom nga jox lu mu moom. parce que ma xamal ñu topp la. boo ko daanee. lañ ma ketal 1 million. lañ la tegal xoolal lañ ma ketal 1 million karim muy kër